fexe tamit ba li ñu wax ci diine ji diine ji tamit ñu man koo mu bokk ci société bi parce que dafa bokk ci ñun su problème amee rek ñu ne kilifa diine yi nañ wax kon loolu da nga leen war a créer benn conseil supérieur de culte et religieux France boo fa demee am na conseil supérieur musulman ñun nañ boole diine yi fi nekk yépp mu am conseil consultatif ñu leen di laaj xëy na ñoom buñ teeloon a yëg lii balaa conseil yi décidé sax danañ convaincre mm. nit ñi parce que day nekk conseil de consultatif et de conseil et de réconciliation ak ak leneen tey nag dafa am benn jàngat boo xam ne moom lañ bëggoon def ci kàddu yi nga xam ne jëmm jooju yëkkati na ko ci loolu ñuy wax maanaam conseil supérieur de culture religieuse te am ñeneen ñoo xam ne maa ngi dégg jamono ji ñu koy wax ñuy wax ne dañoo war a institutionnaliser mooy affaire sëriñ si dañ ko war a dugal ci constitution mais affaire sëriñ si <laughs> mu nekk loo xam ne sax wax dëgg yàlla lu reetaan lu la ci ko xam réellement parce que man su déggee ñu naan affaire yu sëriñ ci dañ ko war a def comme genre institution wala organiser benn wala bokk maanaam taxawal benn conseil supérieur de culte religieux man damay wax ne lii c'est extraordinaire yan sëriñ la ñuy créer la ñuy institutionnaliser wala ban conseil la ñuy créer pour di ci dugal ay ñoo xam ne dañuy tuddee ay kilifa diine lañ entre guillemets en plus sous des sous su dee su dee su dee ay kilifa diine ban diine parce que du islam islam amul ay kilifa ben kilifa la am te yalla la te islam lu personnel la nekkul loo xam ne dañuy créer ben clergé am ay nit ño xam ne dañ leen fay teg kenn ku ci ne di wax di jëmale ci propre intérêt muy li fi nekkoon depuis toujours ay nit ñoo xam ne soo ne yàlla duñ yëngu soo ne yonent bi duñ yëngu il suffit que nga laal seeni organisation yooyu ñu doog a yëngu ñu ne ñooñu dañu leen jël institutionnaliser leen pour lan

ñu ngi koy def ci population bii nekk ci réew mi waaw foogoon ngeen nekkoon melokaan bii nit ñi mel jikko yii nit ñi yor léegi foogoon ngeen ne danañ ko yor léegi ñoo xam ne ña leen tuddoo nañu war a mel munuñ koo mel ñu ne léegi ci réew mi ci boppam nañ leen institutionnaliser ngir li ñuy def laaj leen ci xalaat laaj leen ci xalaat pour lan. ay nit suñu faloo ci réew mi suñ bëggee ay conseiller dem bëgg wuti ab sëriñ def ko conseiller ils sont libres de le faire ku mu neex nga dem wut sa conseiller def ko loolu moo xam nekk ab sëriñ wala ndàngam mais nag conseil supérieur de culture religieux en plus dans un pays laïque rawatina ci benn diine joo xam ne nanguwul clergé rawatina ci réew moo xam ne ku xam histoire xam li ñuy wax tarixa yii nekk fii lan moo ko sos nga gis ñoo xam ne dañuy tuddoo ay anti système ñëw ñoom di wax lu ni mel loolu c'est tout à fait problématique xanaa ñoom xamuñ lan moo sos li ngeen di tuddee ay këru diine ci réew mi noo mën a waxee ne da ngay xeex ab système wala nga ne yow anti système nga ba pare léegi di dëgëral loo xam ne dafa nekk une partie intégrante du système xanaa ñoom dañoo xamul ñooñu lan moo doon seen rôle ca njëlbeen ga nga xam ne colon yi dañ leen defoon ay interlocuteur entre ñoom ak indigènes yi nga xam ne fonction bi ñuy wax xalif général xanaa xamul ne colon yi ñoo ko créer xanaa xamul ne colon yi ñoo leen dooleel ba mu yegg si fii ci loo xam ne islaam amul loolu amul ci islam këru diine amul ci islaam kilifa diine amul ci islam kon suñu def conseil supérieur boobu ci luñ koy def ci ban diine lay tegu loolu nañ bàyyi naxante bi nañ bàyyi nax suñu bopp parce que fii jamono bi toll depuis des années ñoo koy wax ci lañ toll nit ñi nañu leen daan ak ni leen xoolee léegi nit ñi nañu leen jàppe woon ak nañu leen jàppee léegi du benn xam nañ ne emprise bi ñu amoon ci nit ñi mu ngi wàññeeku jamono bu ne day gën a wàññeeku te bëgguñoo ñàkk loolu ñu ngi commencé di ci dox te loolu sax moom yàgg na fii di infiltrer yenn parti yeeg yooyu yëpp wax naa ko ay nit depuis deux mille dix-neuf maanaam commencé di infiltrer yenn parti yi parce que xam nañ ne léegi nit ñi ñu ngi aspirer au changement ñuy ñëw di wax yenn xeetu wax yi ngir léegi di paase pilule boobu ci nit ñi ngir nit ñi di bàyyi xel loolu te nit ñi ñëpp presque xanaa ku ñeme ak ku ñemewul xam nga ne ñiñ doon tuddee sëriñ ci seen bopp lañ nekk loolu loolu te te en plus loolu moo mës a am li ñuy tuddee këru diine ñi ci nekk ci seen bopp lañ mës a nekk ca ba mu tàmbalee ba léegi nag ci ku xam lan mooy cosaanam ni ñu ko libéraliser nii sax ba nga xam ne léegi daanaka ku fëll na ñun suñu këru diine loolu daanaka ci année 2000 la tàmbali mais la fi nekkoon avant di ñeent yooyu loolu fan la jóge ñan ñoo ko taxawal ñan ñoo ko doon dooleel ba mu yegg si fii rawatina léegi ci diine joo xam ne nanguwul lu ñuy wax clergé diine joo xam ne li ñuy wax këru diine amu ci diine joo xam ne li ñuy wax kilifa diine amu ci mu nekk diine ju personnel nekk diine ju yàlla jàngaleel boppam wuuteeg sax li nga xam ne moom moo fi nekkoon li ñuy wax le ci biir sunnisme boobu li ñuy wax tasawuf juddoo ci tasawuf googu am ay tarixa ci biiram ci biir tarixa yooyu nga ñëw fii léegi ñu am lu ñuy wax ay këru diine te nga xam ne soo demee ci alquran yàlla lan lay jàngale yàlla day wax ne moom ñi xaaj seen diina ay kat lañ mu nekk loo xam ne lu leer la te fii ay xaaja fi ne ci réew mi ñenn ñu ci ne ak la ñu gëm ñenn ñu ci ne ak la ci seen ma ñenn ñu ci ne ak seen intérêt na léegi ci benn pays boo xam dañuy wax ne pays laïque la kenn ku ci ne am nga droit gëm lu la soob te état bi moom ci boppam warul sax di financer li nga xam ne moo jëm ci affaire gëm-gëm yooyu ña ko gëm ñoo ko war a financer seen bopp dont suñ état yi respecté wuñ loolu te lu tax respecté wuñ ko tamit ku xam cosaan li maanaam kañ la loolu tàmbali di def ci kër yooyu dara organiser leen di leen dooleel suñu état yi biñ ñëwee dañ ko hérité loolu dañ ko doon ñoom it ñëw di ko wéyal maanaam lii ku ko xamul ñëw ba deux mille vingt quatre naan dañoo war a taxawal ay conseil supérieur de culture religieuse képp koo xam ne da wax ne sëriñ nga soo bëggee lenn benn pal maanaam demal politique yi créer sa parti politique wala nga adhéré ci ay parti politique mbir mi foofu la nekk ñun suñu pays yi bokk ci pays yi gën a pauvre ñu war a xool nu ñuy wàññee sax yenn institution yi ñuy wut a yokk ay institution rawatina ci nit ñoo xam ne depuis toujours ci seen bopp lañ mës a nekk ngeen gis li fi ne ñëpp xam ko ñuy paacoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi alalu réew bi population bi ñoom ñooy sonn ñoom ñooy daj coono yi ci seen umpule ñii di leen téye ci benn umpule ñoom it ngir bañ ñu yeewu sax xam li xew yàlla dogal ñu dem ba gis ne nit ñaa ngi yeewu ñu ngi xippi seeni bët ñu bëgg leen a dugalaat ci beneen engrenage ngir lan bëgg leen a maintenir ca fa ñu ne woon ñoom it bëgg a maintenir seen privilège ñoom it bëgg a maintenir seen i privilège xanaa nit ñi ñoom seen xel yi dafa am leneen lu ci nekk am na ci yoo xam ne ay pour man xeetu manipulation la dafa am loo xam ne jamono doo ko weesu dafa am loo xam ne jamono doo ko weesu pays bii ñu nekk pays laïque la

l'idéologie sunnite lañ fay jàngale donte ñoo ngi fay jàngale français ak leneen ak di fa jàngale l'arabe mais teew dañ fay jàngale l'idéologie sunnite te su nekkee lu public dafa war a nekk loo xam ne nit ku ne loo mën a gëm chrétien bi chiite bi yoo xam ne idéologiquement dafa war a mën a jàngee foofu chrétien bi dafa war a mën a jàngee man mi bokkul ci benn idéologie doon ab muslim képp bokk ci islam kese sama doom war na faa mën a jàngee. alors que demeewul noonu idéologie sunnite la ñuy rien xëy na nguur xamul lolu. te dans les normes lolu, warul am ni ngeen gis comme li ñu wax catholique yi di def di créer ay école privée catholique jullit di la même chose dañu wara def dem créer seen école privée islamique subvention yi ñe di am ñom ñu mën ko am mais une école comme école bo xam dañ fay jàngale diine mu nekk lu public sax lolu warul ay jamono daan ngeen dégg ñu naan suñ mag ñi liñ jàngale dañ ko war a dugal ci école yi comme ci lan xanaa du diini bii kay li yàlla jàngalal te lu personnel la ñi ko gëm ñooy dem wuti fuñ koy jàngee état moom lii rôle mooy fexe ba li nga xam ne mooy lii li nga xam ne moom la ñëpp war a jàng ñoom ñu jàngal leen ko nga xam ne day nekk loo xam ne lu générique loo xam ne ñëpp ci bokk yam ak loo mën a gëm ate bi sax da cay mën a jàng loolu mooy rôlu état état bu laïque loolu mooy rôlu état bu laïque mais pas lii nga xam ne moo fi nekk ni léegi nag ñu dem ba xam ne mbir yaa ngi changé nit ñaa ngi yeewu ñu naan ay léegi dañoo war a créer benn conseil supérieur de culture religieuse waxuma nag ngir kii nii rek di wax ndax kii di wax yàlla dogal na moom nit ku ma naw la mais wax ji wax la boo xam ne dama gis na léegi ñi koy répété dafa bari ñi koy répété dafa bari parce que affaire diine ñi dañ koy mbiru émotion wala mbiru passion diine du loolu diine xel la yàlla borom xel lay waxal ab téeréem ci borom xel yi gëm la ko nit ñi seenu ngëm la seen ak seen borom état bi ñëpp la concerné ku gëm kon dafa nit ñi xam ko ndax wax wax conseil supérieur de culte religieux légui animiste bi léegi athée bi moom fan lay nekk ci réew moo xam ne bokk na ci réew yi gën a pauvre ci àdduna bi ñu waroon a xool ni ñuy wàññee suñuy institution ñuy xool nu ñuy yokkee suñuy institution ndax loolu matul a bàyyi xel rawatina sax ñi may dégg ñu koy wax ñoom ñuy tuddoo diine joo xam ne dara boolewu ko clergé mi islam donte nag li fi nekk njàngaleem ahlu sunna wal jamaa la muy li ñu wax le sunnisme moo fi nekk donte ñu bari xamuñ loolu ñuy prôné lu mel C'est jamono bi ñu toll de la woon woon te li dem day gën di insha allah te day gën depuis 2015 koy wax te nit gis jamono bu ne du fonds de commerce ku bëgg engagé wu politiquement nga dem engagé wu politiquement ku mu soob nga wut sa ci wàllu diine lalay lay conseiller te loolu mosu fee jug sax ci réew mi waaye ay conseil supérieur de culte religieux ñu naan dañuy wute institutionnaliser li ñuy wax sëriñ si loolu amul ci diine diine xamalu ci am ay texte la te texte boobu kenn ku ci ne yow lay waxal individuellement yàlla la muy wax ak yow yow la sa diggante ak moom sa pas-pas yow la sa diggante ak moom sa pas-pas yow la sa diggante ak moom kon kenn ku ci ne ngëmam moo ko war a dundal xew-xew yi fii am ñiy jël ay alal di ko ci def te réew mi am jafe-jafe ci wàllum njàng am jafe-jafe ci wàllum yoon am jafe-jafe ci wàllum dund ak dëkkuwaay lañ fay def sax dañ koo war a jël di ko def ci réew mi xew-xew yooyu ña gëm yooyu ñoom ñu cay def seen yëfu bopp état bi li muy def mooy encadrer leen jox leen lu mel ni sécurité ak xeet yooyu mbir yi noonu la war a demee lii wax naa ko ci vidéo yi depuis 2017 janvier 2017 ak février 2017 ci vidéo boobu tuddoon lettre ouverte au président de la république ak beneen vidéo bu tuddoon proposition de solution mbiru gëm-gëm ñi ko gëm ñoo koy dundal yoonu état newu ci te yoonu état waru ca ne nit ku ne la nga gëm yow la yow yaa ko gëm yow la sa digganteeg la nga gëm ki gëm yàlla ngëm-gëmam moom la diggante moom ak borom yii su ko nit ñi xamoon doxal ko jafe-jafe du am dinañ xam ne kon kenn ku ci ne ku ci ne sa gëm-gëm yow la état bi nag pour ñëpp la kenn ku ci ne sa gëm-gëm yow la état bi nag pour ñëpp la ku gëm ak ku gëmul ñëpp a ci bokk yëpp kon yenn wax yi maa ngi gis ne mu ngi commencé di bari na ko nit ñi bàyyi xel c' est de la manipulation conditionnement la te loolu wéy na jamono yi ñu toll nii ak jamono yu ñu jëm incha allah li jamono bi gën di dem loolu day gën di leer te bañ ko dalee wax ak léegi nit ñaa ngi ciy teg seen bët loolu wéy na la woon woon ni na ay nax la woon yu fi yàgg nax yooyu jamonoy dëgg ci lañ toll day naax saay sikki saaka amu ci kon loolu nit ñi nañ ko bàyyi xel te ubbi seeni xel te ubbi seeni bët di xool yii ay xeetu manipulation la réew mi li ñuy tuddee ay jullit ñoo fi ëpp ñu koy tuddoo ñoo fi ëpp lan ngeen gis ñu ko fiy def lu dul lu mel ni ay sol grand bu sol ay xaftaan def ay concours neexal baat ci alxuraan nangam lan la ñuy def leen organiser ay xew-xew yu amul àpp di nettali ay conte ak i légende yooyu moo fi nekk est-ce que diine yàlla loolu la est-ce que ñu dem xooli lan la yàlla jàngale ndax yàlla sax dafa digal nit ñi ñuy comme yi nga xam ne moo fi nekk organiser ay comme li ñuy wax ay këru diine wala li ñuy wax ay kilifa diine par exemple di organiser lu ñuy wax ay maanaam comme ay concours ci gën a neex baat ci alquran wala gën ko mokkal alors que téere boo xam ne dafa ñëw ngir ñu koy settantal li yàlla wax ne kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun li yaddabbaru ayatihi wa li yatazakkaru ulul albab mu ne ab téere la bu mu barkeel wàcceeku mu jëm ci yonent bi ngir ñu settantal ay aayaam ak ngir borom xeli xelaat mu nekk ci surat 38 verset 29 est ce que loolu suñ ci nekkoon lii yëpp dina mën a nekk lu ëpp ci réew mi dañuy wax ne ay jullit lañ lan lañ fi def da ngeen gis ñu ñu tuddee ay chrétien seeni école ñi nga xam ne dañuy wax ne ay jullit lañ ñenn ñi ci am moyen fan la ñuy yóbbu seeni doom ci école ñu ñuy wax ne ay chrétien lañ ñoom fexe nañ ba ubbi li ñuy wax ay genre centre de santé comme li ñuy wax kër sœur chrétien ba kii tuddoo islaam ak ñëpp a cay dem te dañuy fexe ba yombal ko ba ñëpp mën caa jëriñu ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi nekk ci ay concurrence wala rivalité ñoo gën a rafet la jàkk ñoo gën a rafet la oto ñoo gën a rafet la lii ñoo gën a rafet la laa lan lañ fi def lu ni mel déggu leen fi sax ñoo xam ne dañ leen di financé ci hôpital ñu naan ay nit ñoo ko séddoo ñu ne léegi nañ ñooñ nañ leen institutionnaliser pour lan waaye nañ xalaat waaye caaxaan jeex na de caaxaani jeex na de macha allah nañ xalaat ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jële ngeen jëf asalaamaaleykum